بشرى لنا قد آتانا الجود والكرم لما سألت علينا لسر العروم عصنا متاب الماء قفران في رجاب والنار تجي في البواخر لمن عريمه gisee jotaay bi jotaay bu yaay xam ne am na lu xew muy waa daairatu wakaan xaqan alayna nasrul muminin bi nekk fii ci daaru xudus te bis bu am solo ci bu am solo tamit ci yoonu murit muy 18 safar ñun nag ñu ngi tres defee le 13 ñu ngi koy safar fii ci daaru xudus ci jàkkee daaru xudus allah rabbi ci njiitalu daayira bi Serigne Baye Dame Thiam jiite daayira bi kon nag ñu ngi ciy woo mbokk julli yëpp te tamit programme bi tamit dana tëddee nii dañuy jox sëriñ Lamp Dem moom mu wax ci turu organisateur su paree ñu jox Serigne Cheikh Mbacké mu wax ci turu waa culture mu paree ñu jox ci Baye Dame mu wax ci turu waa communication bi wootee ndaje mi kon bisimilah suñ Lamp Dem. mbokki julli di mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu baax di leen ziare di yëgatu sunu kàddu ci sunu. ci ndigalul sunu jëwriñ Sëriñ Mahmoudan loo di wax ne mu ngi soññ mbooleem commission organisateur góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne yaa ngi ci organisateur rek ñu taxaw liggéey bi comme nañu ko daan taxawee at yu weesu yëpp at ci gii ñu jëm tamit gii ñu dënmal bu ñu àggee ñu taxawoo ko comme nañu ko daan taxawoo kenn ku nekk parce que ba nga xamante ni jox nañ la ko te teg la fa liggéeyee ko na nga ko na nga ko war a liggéeyee te ànd ci ak pëstéef ak pas-pas nee mu ngi ci soññ góor mu ngi ci soññ jigéen mu ngi ci soññ mag ak ndaw muy ci biir organisateur am na ci ñoo xam ne ñu ngi yor wàllum sécurité am na ci ñu yor lu jëm ci wàllum wi am na ci ñu lu jëm ci wàllum organisé bi kenn ku nekk rek fa nga xamante ni jëwriñ ji teg na la fa muy Serigne Mahmoudane Lo nee na nga jàppale ko ci pas boobu noonu nga xam ne teg la fa nga fonkal ko ko te boole ci pas-pas ak Pastef kon loolu moo doonoon soññe bi nga xam ne suñu jëwriñ Serigne Mahmoudane Lo waxoon nañu jàllale ko ci mboolem commission organisateur asalaamaaleykum wa rahmatullah leen nuyu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di nga ñaanal fan wu gudd ak wér noonu lañ koy ñaanalee mboolem njabootuk sëriñ tubaa gépp di ñaanal tamit khalifa daal xudo si ahmadul muxtaar mbakke ya yàggal ko fi mu ak di wax rek ci euh, commission culture comme ni ko cheikh mohamadou muntaxa diglee rek def naa ne wax na ne fii ba màggal gi rek mm, murit bu ne sas na la ñetti kamil euh, te tamit wax na ki ñuy sant muy cheikh ahmadou bamba nañ ko santalee boromam ci jang xasida ak jàng kon waa culture ñu ngi leen di soññ bu baax rawat na commission bi naan culture ñu leen soññ ci jàngu xasida bi ak jàngu kaamil bi ak mbo ak salaatu ala nabi di soññ tamit daayira Wakana Haqqan noonu lañ koy soññee tamit wala murit yëpp muy jàng xasida gi ak jàngu kaamil bi loolu daan lañ commission culture doon sàkk ci mbooleem daayira bi rawat na mbooleem euh, euh, membre boo xam danga nekkee ci wàllum culture bi kon ñi ngi ñaanal cheikh ahmad cheikh ahmadou mokhtar mbacke yalla yagal ko fi ak cheikh mamadou muntaha wassalamu alaykum wa rahmatullah mm, comme niko señ lamp xere duñ ci tegat dara soñé bi euh defé na ñepp dégg nañ ko benen bi ci dess tamit ñuy wote ñi nga xamanteni ni dan nañ japp ci liggéey bi ñoom tamit ñu ngi leen di jëgal bis boobu baaxa baaxa baax eh, ku ci mel ne sëriñ pafadel moom tamit ñu ngi koy ñu ngi koy soññ bis bi di ko ca dakar noonu tamit lañ koy soññee Serigne Moussa Faye mi nga xamante si ni moom tamit mi ngi ci biir liggéey bi moom tamit ñoo ngi koy soññi bu baax a baax a baax te di ko koy yëgal comme sax moom mi ngi ci biir liggéey bi te noonu lañ ko yëgalee tamit waa waa zone Dakar ñi nga xamante si nii ñoom it wax dëgg yàlla ñu am pas-pas la impossible leen ñoom tamit ñu ngi ci biir liggéey bi ñu ngi leen koy yëgal di leen ko fàttali di ko fàttali tamit eh, Serigne Fadlou Ndour moom tamit ñu ngi ko koy fàttali bu baax a baax a baax noonu tamit ki fi nekk sax moom la waroon jiite muy Serigne Ahmadul Mokhtar Mbacke moom tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax mu yàgg fi loolu te wér ñu ngi koy euh, yëgal bis yi di ko fàttali te di ñaan mu ñaanal ñu ci bu baax a baax incha allah rabbi te it ak mbooleem jullit yëpp yëpp rek képp ku ci daan jàpp ak Serigne Abdou Samad Mbacke moom Seex moom Serigne bu moom tamit daana ci jàpp bu baax a baax kon daal ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn te di woo waa dayra ànd liggéeyal Serigne Touba. jëwriñ Serigne Moussa Fall moom tamit ñu ngi koy yëgal bis bi ak mboolee mi mu àndal yëpp ak képp képp koo xam ne daal wakkaana xaqan agsi na ci yow ba nga xam ko jëwri bépp bépp membre wakkaana xaqan képp ku ñu xam daal nga gis nga gis image yi ñu ngi lay woo ci bis bi bàyyiwuñ kenn jànkati xasida yëpp ñu ngi leen woo képp képp koo xam ne daal lu baax ñor na rek ñu ngi lay woo ci bis bi te it buñu àggee ci bis bayit it nam baaxoo tëddee rek laan tëddee danañ fa amal njàngum xasida ak njàngum alxuraan danañ def ay berne yooyu yëpp ngir waajale ko bis bu mag ba kon daal ñoo ngi koy bàyyiloo xel ñëpp bu baax a baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Média TV, la télévision dans les prochains jours. Des émissions, des interviews, des débats, des reportages, des éditions de journal pour vous informer. Touba Média TV, une télévision basée à Touba. isum wa salaamu